mali faray de o oh, fay deynanoɓe kummola barajo to mali fara saro de morlo du suñu morom wa parcelle duñu suñu morom man tafa mali fara maa ko wax wa parcelle duñu suñu morom wa parcelle duñu suñu morom léegi fu ñu dem loolu duñu ko wax kenn duñu ko wax kenn décision après à suivre quoi ñun duñu laaj benn borekat ku bore ku boreegul ak ñun doo am xaalis ñun duñu laaj kenn quoi instant yi roi des arènes ñun nii nii nii nii jërëjëf maa ngi leen di siyaare ملل